saafara wax na tamit lu jëm ci wàllu mbay gis nañu sax indi na ci ay euh, kàddu yu yaatoo yaatu wax ci euh, le fait ñu ñoŋal ko jamono ju ñu toll nii bor yi nga xamante ni jot nañu ko daal di fay donc wax na ci wàllu mbay ngir ñu gën ko daal di euh, ñoŋala ban gis-gis nga am ci communiqué bi nga xamante ni honorable faram fàcceel na ko sànq. waaw jërëjëf soxna Jaaratulaay hmm? di féliciter monsieur le ministre El Hadji ci faram fàcce bu leer bi mu def ci communiqué bi nga xam ne. alxames bu dee day génn balaa maa ñëw ci mbay mi nag ñu tàmbali ci màggal bi mhm. euh, defe naa président moom la ubbee euh, muy lu am solo ndax màggal xam nga au départ c'était une fête religieuse mais dañoo dem ba affaire bi am impact économique boo xam ne économique pardon. Mhm. bu jéggi dayoo kon état ci boppam. day gis boppam ci màggal. Mm-hmm. waaw moo tax ñëpp ci war a taxaw pour mu jaar yoon. dafa am benn universitaire bu tudd Souleymane. Bachir Bachir euh, naka bindoon naa tur bi xaaral ma xool ko. Souleymane Astou Diagne. Ah, waaw xam naa nag mbokku Bachir Diagne moomu la soriwoowuñu. 2017 mm-hmm. dafa jiitoon woon benn étude boo xam ne université bu Bambey ñoo ko defoon sur l'impact économique du màggal 2017 laa wax de. ba 2024. kon bépp chiffre bu ñu waxoon nag dañ jàpp ne li ñu xayma woon ci impact bi mooy plus de 250 milliards la màggal bi di généré at mu ne. 250. milliards milliards laa wax de waxuma million parce que màggal léppay dox. Mm-hmm. rawatina li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo xam nga màggal ñaari ponk kese la bernde jàng alxuraan jàng xasida loolu kese la. léegi nag ci bernde bi foofu la impact économique bi di génnee parce que dañu xool ne lu mel ni ay suukar ay meew ay diwlin maanaam ñoom seen seen seen importation day laal pic day dem ba egg ci pic boo xam ne mës am ci année bi ci réew mi mm-hmm. parce que liñ ci jënd dafa bari ay soble diwlin meew yu mel noonu beneen bi mooy li ñu fay faat ci ay ci ay mala nga xam ne seen der yi étude bi lu ma ne woon ëpp na deux cent mille têtes imaginel tey mala yooyu seen der yi après dañuy mujj obligé di ko sànni moo tax bi ñu defee jàngat ba pare dañu lancer appel pour que ñu renforcer l'industrie locale au niveau de Touba nga xam ne bu doxoon dafay xëccaale toute la région de Diourbel xëccaale même yeneen secteurs yi parce que li fay yàqu ci ay der kenn xamut nu toll loo xam ne mënoon nañu ko jël transformer ko. Euh, wala ñu yóbbu ko ngaay fi gars yi di defaree dàll yeeg ceinture yeeg saak yeeg yooyu pour renforcer l'industrialisation locale beneen bi mooy les transferts d'argent 60 mm-hmm. milliards lañ ko estimé woon 60 milliards woo xam ne day jóge bitim réew rek xaalis bu ñuy yónnee ci réew mi pour màggal kon gis nga impact économique bi mu am léppay dox ba ci transport bi. par exemple tey Air Sénégal parce que ay milliers de personnes ñoo jóge bitim réew di ñëw Sénégal pour màggal si tey loolu bu ko Air Sénégal capté woon rek. Mhm. affaire am baax. waxuma la rek transport interne bi ci biir réew mi nga xam ne ren gouvernement bi da ciy indi ay ay soppite yu am solo <laughs> mu toll nii transporteur yi defe naa ah. duñu bajantu bi normal lañ de non seulement dañoo teg ay bus fixe prix. wax bus yi fi ñuy déparé te du romb mille francs bus yu bakkane mooy yii di daw ci gox goxaat yi. Mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga ñu ne déetawaay ñu xëcc train bi teg comprendre parce que moom moo comprendre na ne événement bi bu ko organiser lul boppam lii nga xamante ne wane na ne deux cent cinquante milliards la woon deux mille dix sept nga xam ne ñu ngi deux mille vingt quatre dina dem ba tollu chiffre boo xamante ne dafay nekk événement boo xam ne dafay dem ba dootul mën a te maanaam dañuy ñaan chaque <laughs> màggal bu mënoon a am chaque ñaari weer wala chaque ñetti weer sax bi def ko. Mm-hmm. que li ci état di jëlee ci xaalis imaginez tey ñu ne la deux cent cinquante milliards calculer TVA dix huit pour cent rek nga xool ñaata la xaalis bu dul jeex la ci état bi di am kon du màggal rek même yeneen événement religieux ay gàmmu muy Tiwaawoon muy Kaolack mu ci mënti doon donc c'est des événements yoo xam ne. état bi dafa dem ba xam ne lii moom moo ci njëkk a gis boppam avant sax ñu koy def en terme de li jóge ci alal li dugg ci gafakaam kon mesures yi président sàkku loolu moo jaadu te dañ ko gën a dañ ko war a gën a renforcer en tout cas transport bi moom vraiment ñu ngi féliciter le ministre El Malick Ndiaye très sincèrement parce que expérience bi mu am ci tabaski bi dupliquer ko ci màggal gii te gëm naa ne chaque événement religieux ak événement bu mu ci doon noonu lay demee pour soulager souffrance su population yi daan am nga xamante ne transporteurs yi dañuy di bum di bumbi di def lu leen neex loolu nag ñu ngi ci féliciter le ministre euh, El Hadj Malick ci mm-hmm. euh, ci kilifteefu la premier ministre Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Faye kon daal euh, nañu gën a taxaw ci tous les services de l'État yi nga xam ne dañu impliqué wu ci màggal gi muy sécurité police gendarmerie sapeur pompier ba ci fajkat yi. Euh, ministère de la santé ñoom ñëpp dañ ci fexe ba ànd ci ak le comité d'organisation te xam ne événement la boo xamante ne li ci état bi di gis boppam ci wàllu koppar buy dugg ci keesam kenn xamul fu mu kon loolu euh, heureusement bu ko président euh, comprendre gën koo comprendre ba gën ko jëmmal ba tàmbaleeg moom. Mm-hmm. ci conseil des ministres bi. beneen bi aussi mooy tukki bi mu war a def Chine loolu aussi dama jàpp ne lu lu jaadu la xam nga président ba mu tàmbalee teg la di dem France rek ñu bari commencé woon di wax. waaye xëy na dañoo xawoon a yàkkamti rek waaw gis nga sommet bi euh, coopération sino-africain bi lu ama ama am solo na ci réew mi parce que nag Chine puissance économique mondiale mm-hmm. waaw neex na xari neex na xari tey ñun suñu lëkkaloo ak Chine ñun ñoo ciy gañe mm-hmm. parce que tey fi mu toll Chine ci wàllu économique ak yeneen tey ñun ñaan nañ am amoon nañu yéene àgg fa te some la boo xamante ne tey am na solo ba nga xamante ne luy renforcer la coopération sénégalo-chinoise lay doon kon loolu aussi defe naa ci fin du mois bi la war a amee euh, muy daje bu ama ama am solo boo xamante ne euh, ñu ngi ci encourager le président mu dem ci bu baax diversifier la coopération ba nga xamante ne tey euh, ñi doon théoriser FRAPP France dégage ak yu mel noonu xëy na dinañ mën a gis ne ñu ngi diversifier la coopération gën a joyanti Euh, suñu suñu suñu suñu politique de développement ci coopération boo xam ne dafay lalu ci gagnant gagnant nag cette fois yi mhm. mais ni koy defee avec la France nga xam ne booy xool daanaka moom mooy ëpp lu mu ciy gagné loolu aussi lu ñu war a joyanti la et je pense que forum yu mel nii dafay permettre ñu gën koo ñu gën koo ñogal beneen bi aussi li may jeexale mooy mbay mi waaw mbay mi nag moom euh, li ñu ne c'est en temps de de paix qu'on prépare la guerre ah loolu dëgg la ndax xam nga ne euh, xëy na waa Ndakaaru ñoo gisul taw waaye gars yi ñu ngi bay ci àll bi. waaw ndox maa ngi wàcc ci àll bi euh, te nag fii lañ mën a préparer la campagne de commercialisation parce que du ñu bàyyi ba affaire bi jeex rek ñu doog cee jublu li tax moom mu teel a actionner les leviers du ministère de de l'agriculture la souveraineté alimentaire et de l'élevage muy Mabouba Diagne moom it ñu koy féliciter parce que gis nañ tournée yu bari yi muy def ci àll bi. Mm-hmm. Euh, moom xam naa ne xaw koon waaye gëm gëm naa ne bu dul baykat bu dul baykat it <laughs> ñàkkut ay tool. Mm-hmm. sawar na de ci ministre ñeme na tool yi trop bu ko Sonko teewul man de dama koy gis te loolu nag c'est très bien. Mhm. man pour man dañ ko war a féliciter. parce que boo nekkee ministre jiite benn secteur. Mhm. Euh, dañoo war léeg-léeg ñu tëj bureau yi fa clim yi. Mhm. waaw dugg ci àll bi waaw dem xool gars yi xool seen condition lañ ne xool seen i jafe-jafe. ba nga xam ne yow boo demee conseil des ministres sax da ngay am loo andi. Euh, te loolu defe naa dañ ko ciy féliciter. Euh, kon mu mel ne tegu nañ ci tànku préparer campagne de commercialisation bi nga xamante ne. Euh, war naa am bu mbay mi jeexee loolu aussi dafa bokk ci lii di dimbale état. Mm-hmm. te bul fàtte ni dañoo bëgg souveraineté alimentaire euh, souveranté alimentaire nag mbayee koy indi bay waaw bay lépp loo xamante ne daanaka moom la askan wi soxla ñu mën koo bay ci réew mi jëfandikoo ko ci réew mi ba nga xamante ne li ñuy jéggaani bitim réew muy importation yi dana gën a wàññeeku bu baax. Mm-hmm. Euh, jàngat boobu daal laa ci def di féliciter tout le gouvernement. Euh, avec à sa tête le premier ministre Ousmane Sonko di di féliciter également le président de la République moom nee na dina dem fan yi Touba. pour visiter ji lépp dafay dugg rek ci cadre euh, gën a ñoŋal màggal gi nga xamante ne euh, dinañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm. Mm-hmm. incha allah euh, ami mu mel ni mbir maa ngi noonu communiqué baa ngi noonu gis nañu kàddu yi nga xamante président Bassirou Diomaye Faye moom la daal di ci conseil des ministres bi mu na ci ba ñoŋal lépp loo xamante ni rek dafa aju ci màggal